may wax ni le 8 mars du bisu fet bis la war a nekk boo xamante ni dafa war a nekk bis bu ñuy def le bilan voilà bis la boo xam ni dañu war a bis boobu la ñu war a génne lan mooy jafe-jafe jigéen fan la jigéen ñi jóge fan lañu toll est-ce que am na ay avancé oui li des lu tax mu des oui am na lu des lu bëri parce que du thème yi damay wax ni thème yi du tem ay thème yoo xam ni dañu koy dañu koy rek comme ça banalement voilà, rek ben, thème ñëw du slogan dañu nous thème mais nous devons mettre matérialiser parce que pourquoi nous devons ko matérialiser Moi, boo xoolee thème mu année yi passé depuis de depuis Stockholm 2014 alors que le prolongement, prolongement prolongement de l'agenda post 2015 xam nga communauté internationale bi 2015 dañu waxoon Sénégal euh, Afrique dafa war a développer alors que am taux bu ñu waroon a fixé sur les dividendes démographiques et le développement de l' Afrique que Afrique war na yegg si fii bi ñu ñëwee ba 2015 2014 dañu xam ni diggante bi dara mënu fi sotti alors que ñu def prolongage prolongement du poste l'agenda post 2015 à 2030 objectif du développement durable avec les 17 points. Alors, ci ci ci le le 6W c'est un thème pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles depuis 2015 mais 2015 à 2020 war nañu xool pourquoi nous avons changé changer thème parce que thème bi dañ ko teg ba pare directives pour suñu gouvernement yi jàppale jigen ñi ak xalé pour ñu autonome financièrement est-ce que tay dañu wara xol ñun Sénégal est-ce que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles bobu ñu est-ce que amna su amul pourquoi amul est-ce que état def na li wara a def su ko d'accord est-ce que nous, fait ko Non. nonu la lu tax ba tay am blocage parce que tout le monde sait que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles amul de la alors que pourtant état génne na dégagé na centaine de milliards yo xamante c'était c'était euh, politique gu bu développer, ak xalé bu jigéen bu développer, ak emploi moo mais ba tey amul kon war nañu taxaw foofu chaque année balaa ñëw dès janvier ñu commençons chaque région chaque département alors que au niveau national ñu dajalé ko denne ben référendum won président niko def nga malgré def nga li tout cela mais taxul ba tey mu dem am na blocage am na fu nu jóge woon d'accord mais am nañu blocage blocage bi nag lan lan moo ko waral est que santé wu jigéen ñi la est-ce que ñàkk xam-xam la est-ce que ñàkk formation la lan la parce que pour nga pour nga autonome il faut nga boole lu bëree bëree bëree bëree bëri y ay blocage parce que quand on parle de développement ou autonomisation des femmes on ne parle pas des femmes urbaines on parle de la, femme de, la monde dans la monde rural voilà c'est pour cela qu'il faut que nous xool blocage yooyu bari na soo demee si jigéen ñi da ngay gis ni war nañu taxaw kon ci santé wu jigéen ñi santé de la reproduction lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile parce que jigéen ñi ñi ngi yow yaa ngi am ci borom kër ëmb wasin amul ñaari at nga ëmb yor parental bu kooku juddoo kee amagul ñeenti at nga ëmb kooku talul sax liggéey amul sax santé alors lutte contre mariage précoce xale bi nga xamante ni jàngam yëgul xamagul sax dara ñu jël ko maye ko mu ëmb ay cëram mënagul a téye ëmb boobu blocage dikk na ñàkk santé ñëw na waaye yamu ca day am doom ba pare am problème fistule obstétricale problème maladie day ñëw ñu ber leen daanaka booleetuñ leen ci ci ci ci ci ci ci nit ñi booleetuñ leen sax ci nit ñi ki nga xam ne moo ko jëloon te waru ko woon a jël parce que bi mu koy jël âge sëyam matul woon mu fexe ba mu ëmb mu nekk euh, grossesse précoce ñu jóge si loolu mu mu am doom yamul ci loolu mu am feebaru fistule obstétricale ëllëg kon mu faj ko daf ko fay bàyyi ci alors la violence la et je parle par l'expérience parce que je je dirige population développement de l'Assemblée nationale réseau population développement de l'Assemblée nationale Il y a obstacle Te kom bougou nou li dal Filipine dal nou, dan nou bougou nou jere sou nyon devidan, sou nyon last da fegan dite, nyon ki tol, nou sensibilize lè, nou kama lè, ou feke fukid yon negam, wala diyon fukid yon negam, nga feke yon akse koupoul, ban yon dondou, trankelman, khol, naka gen di espase sen diyon. Non, bou manè kal nan, lougoune fi, genne fi. Paske ke la nan yoy, bah, nak, bah, oul, bou yag, bam, fek la, fa, djap lè la. ku ci nekk yow ya wara xol naka ngay rationaliser sa dund bu dund dund gu tranquille mana am lo épargne pour man ci dimbali sa bop euleuk ak sa njabot lolou ngay def non du yamul ci yow day dem ci état parce que de ce fait que nga xol ni yow war nga meuna dund ci sa juroom fukk junni yi wa legui bo amé dom defal ñaari at xalé bi fer nga ëmb bok at bu xalé bi juddu fekke am ñetti at nga xam di nga boo ko ne toogal fii sax dana xam ne war naa mën a toog fi exemple yooyu la ñu wax alors loolu day permettre état li muy économiser ci dividende bi daf koy investir ci santé investir ko ci école investir ko ci emploi des jeunes parce que xale yi foog ñu liggéey liggéey amul bari na bari na ay yu bëree bëri yoo xam ne ay obstacle la yoo xam ne vraiment ak ak femmes yi demul loolu nag suñu ko boole woon ba mu yegg le 8 mars ñu jébbal ko le président de la république sanaru mémorandum ni ko voilà def nga fi lii jërëjëf kontaan nañu mais des na te li tax mu des mooy lii moo tax mu des liñ ci war ñun mu def ko ñu def ko muy sensibiliser population bi mais état li lim ci war a def mu def ko ci parce que financement yi ñuy teg bari na mais est-ce que koy joxee noonu la est-ce que formation bi ki nga koy jox formé nga ko ki defar projet am ñëw nga war ko financer deux millions cinq cent ngeen ko jox naa la deux millions cinq cent waaye un million bi laa lay jox après boo ko boo demee six mois jox la un naka lay réaliser projet wu deux millions.

Euh, amul avancer, ñu ñu trouver solution je pense que foofu la ñu foofu man man man personnellement foofu la donne. Euh, et puis je souhaite vraiment que ministre de la femme sama sœur Ndeye Saly Diop mu gën a xalaat ci foofu nga xamante ni dès janvier rek dinañ commencer def ay forum waxtaan chaque région des forum. identifier la fa xew lu fa état def fu mu toll fu ca jigéen ñi toll lu ca des pourquoi mu des ñu dajale ko mu nekk benn mémorandum national boo xam ne moom la ñuy wax président nga xam ne bu ko bu ci toogee ba ciy waxtaan dinañ xam li gën a urgent ñu taxaw foofu pour xamal la ni assemblée nationale c'est du sérieux loo mën a jàng diplôme boo mën a am soo fa ñëwee da ngay soxla nekk da ngay soxla am formation parce que parlementaire mooy koo xamante ni expert lay doon ci lépp

Euh, même le jang jang français il faut que jox xam-xamam dafa alors que mu mu l'exposé des motifs lolu qui lay lan population bi euh, euh, conséquences alors que en même temps dafa dafay dafay dafay c'est pas quelque chose de facile dafa laaj modeste assemblée dafa laaj modeste loolu président Macky Sall daf ko def ci ñun daf ñu permettre ñu xam naka la ñuy lire budget naka la ñuy xoolee yan lonet la ñuy euh, les lois parce que loolu mooy lii ëpp solo ci liggéeyu parlementaire parce que loi bi des fois ñu laxas ci yo xamanteni vraiment yow en tant que ku soxeel xel màccul ci yooyu mënoo ko xam alors que vote nekk loo xamante ni lu lu am njariñ la parce que bis boo xalaatee ni wii ou non bi amul solo rek daanaka mën ngaa génn assemblée ndax li lay li may ciy joxe tegtal rek damay wax nii policiers yi ñu fi yàqoon seen àddina ay député rek xëyoon benn bis wote ñu wàcce leen mais pourtant pour ñu intégrer waat leen ci police nationale bi ay député ñoo wote waat pour ñu intégrer leen kon vote boobu dafa jara jàngat bala nga vote loo loo loo xamul lu muy jural doomu aadama bi lu muy jural askan bi ëllëg parce que maar day taal tey bu député yi gëmoon seen i bët voté la loi homosexuelle boobu bii fii au Sénégal guerre sax mën na fi am guerre sax mën na fi am alors que moo tax assemblée nationale day bijou bu am solo boo xam ni fokk nit ki xam ko loolu nag le président Macky Sall defoon si onzième législature mooy def ñu ay vrai parlementaire vraiment man sama premier mandat euh, dama tour sama lo empreinte biir assemblée nationale ci la génnee sama livre bu mag bobu ñuy wax di dara à l'hémicycle voilà mi ngi fi. biñu ñëwé 12e législature ñu ni vraiment assemblée bi mom Macky mom c'est du n'importe quoi lu nekk ci nekk bi mom moy bi gëna yees ci adina et pourtant 11e dañ doon wax baaxul assemblée bi baaxul mais.

kenn mënu fa sensé virgule waaw boo gisee mu metti euh, ñu dund ci treizième législature loo xam ne mosuñu ko dund nii onzième man nii douzième alors te ye ko jiitu mosuma ko fa dégg parce que maa ngi ci Sénégal di seetaan li xew voilà les <laughs> bu ma ko fekkewul it maa ngi am na les archives sont la mais bii li xew biir assemblée xeex ba fa xew saagante ba fa xew façon ñàkk fayda ba nga xamante ni am na ak treizième législature mosul am assemble national loolu nag la ko waral dañu defee woon ni ñoom war nañu mën a ñëw changer assemble bi ni muy doxee alors que c'est pas ça mënoo fa changer virgule lenn rek nga mën a def mooy yow la fa tax a ñëw mooy dañ la ni parlementaire nga demal nga waxal askan wi nga ñëw boo waree wax nga wax loo xam ne mooy jariñ askan wi suñu defee baax na suñu deful aussi yow sa jaan wàcc na mais munoo pas c'est virgule parce que majorité bi la majorité présidentielle alors que opposition pas changer. chaque loi a des conséquences yo xamanteni aussi dañ ko parce que loi jox muy bien après lu nga euh, nationalité c'est bien mais. yow sa doom yaa koy jox nationalité mais autorité parentale yoroo ko sa xam nga li ma la wax xam nga yoroo ko autorité parental yoroo ko pour sa doom génn réew mi il faut ku góor ki def lay eh, jox autorité euh, autorisé la nga mën a mu xale bi mën a génn su fekkee yàlla def na ngeen tàggoo mu mu koñe la bu bëgg xale bi waree génn même bu doon intérêt la sax bu ko neexee bañ alors que bari na parce que parce que am na ci biir code de la famille bi yoo xamante ni war nañ ko seetaat bari na bari na bari tey boo xoolee ci biir code de la famille bi dañ ni jigéen dafa war a sëy à l'âge de 16 ans alors que dañu dañu ratifier euh, convention internationale yi alors que te foofu 18 ans la ñu wax léegi te loi yooyu ñoo supérieur suñu loi nationale yi est-ce que duñu fexe xëcc loi bi mu dem fekki bële alors que vraiment ñu fexe méngale luwaa suñu loi suñu code de la famille ak loi yi nga xamante ni aussi ba <laughs> sénégalais dañu ko ratifié dañu ko d'accord loolu am na ci solo ñu wëlbatiku wootewaat ba ci démb euh, waa loi euh, violence faite des femmes et pédophilie voilà criminaliser c'est important quand même mais day am yoo xam ni loi bi du ko mën jël en charge ci décret d'application bi lay génn muy génne yenn détails yi parce que euh, am na solo vraiment euh, jigéen ñi rey bi bari na xale yi euh, da ci am ñoo xamante ni ay malade mentaux lañu duñu ñoo xam dañ leen a war a bàyyi ñu taxawaal ci société bi xama boo demee ba gis baay di def doomam ci mu jur ci keñoom yenn yi nga xam ni kii dañ ko war a isolé di jaay di ko def jarbaatam fekk xale boo xam ne amul sax trois ans kooku xam nga ni kii wérul benn ji benn jaboot bu tëdd nelaw amatul ndax lu ñu li xa du jigéen rek ah góor comme jigéen parce que am na ku ñu fi jàpp bu yàggul defe naa ñu góor ñi la ko doon def voilà kon bu ñu yaakaar ni affaire bi ci góor ñi ci jigéen ñi rek la noonu non dañ ni violence fi femmes et des yi dafa nekk ci góor ak jigéen voilà je pense que euh, lu am am am solo la loo xamante ni aussi bokkuña na ci avancé yi nga xamante ni jigéen ñi soxla woon nañ ko mais xam nga nit boo ko takkee bëgg ko ba yàgg nga nga ray ko yooyu ay ay kaala daan doon yoo xam boo ko déggee bala nga koo déggati yàlla rek a xam mais xëy na ak li ñu dindi euh, euh, ku ku ku dépénaliser ku rey ñu rey la loolu moo waral tey ku mu neex euh, nga ni am na ci koo xam ne xaw xaw ma nan nu mu tudd ti nga xam keroog bi ma ko seetaanee dama doon jooy mënuma ci sax wax dama rey da dama rey sam kii parce que sama na nga ci génn parce que jabarama mooy waa na aussi dëkkoon côté ci Floride yi alors c'est c'est c'est compliqué des nga dégg si yoo xamante ni vraiment man si travail chez les femmes damay liggéey si biir jigéen ñi euh, Sénégal bu gën a reculé des fois ñu defal la benn témoignage boo xam ni di nga ñibbisi daf lay top weer doo mën a Tel tellement que c'est douloureux alors euh, vraiment euh, loi bi dafa ñëw ci heure am ci waxtu bi nga xamante ni foofu lañ ko soxlaa alors ñuy remercier le président de la République di wax ni xay na sénégal yi dinañu xam ne loi bi loi bu ñuy appliquer la parce que euh, nit ñi ko doon xeex ba loi bi am ñun duñu bàyyi parce que lu ñuy dund li ñuy jot ci ay courier man li may recevoir ci ay ay ay ay ay vidéo ay message yoo xamante ni dañuy agressé jigéen ci de façon boo xam ne dañ koy yàq àddinaam completement di nga toog weer woo xam ne saa yu ma tëddee day mel ni image bobu dañ mako tégal ci sama sama sama sama sama kanam alors c'est c'est douloureux c'est douloureux muy lo xamanteni nak vraiment surtout pédophilie bi man dama ci xam lo xam lu yag la lu yag la lo xam dañ koy nëpp nëppal ci biir kër yi nga yak adina xalé bi ba pare ñuy nëpp nëppal ko parce que bàyyee ko def parce que ndijaay ko def parce que doomu bàjjana ko def non arrêté stop yoyu dafa wara jeex parce que a vie lay top doomu adama bi nga am sa doom bu góor mu nekk si biir kër gi alors que ñu yàqal la ko ba defal la ko borom ñaari tur yi te fekk moom di ci dara ñu di ko nëpp nëppal si biir kër gi c'est parce que bëri na yoo xamante ni vraiment euh, day man dama am raison garde boo xamante ni daf ma obligé ma garder yenn secret yi aw ma droit di ko di ko di ko di ko génne parce que tellement que da ci am yoo xam ne man maay dem ba tegal ci sama bopp sama bët vraiment bi ñëw na ci ci waxtu bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar parce que fekk na booba ñun ñëpp ñu ànd yuuxu ba mënatuñu yuuxu parce que bala bala bala bala ojo yi wala vidéo yi di tas ci population bi fekk yónnee nañ ñu ko ñun en tant que des alors que ñu am collectif des femmes parlementaires on est actuellement 71 femmes yoo xamante ni ñu ngi liggéey si loolu chaque fois ñu ngi xool lan mooy njariñu jigéen ak xale. dëkk bu fekkee nii fa nga dooree sa politique. fa presque fa nga fa nga nekk sa jeunesse xam nga kat vingt ah, quatre vingt quatre vingt six laa nekk biir yara définitivement à nos jours ñata at la fa ne reta ñata voilà fa euh, laa doore sa politique muy dekk bu am solo ci man yara sama lepp foofu la ko amé dama wax ni dekk so fa nekké ñu fa la fa ñetti yoon conseil municipal en tant qu'adjoint au maire deseeluñ la dara muy dëkk boo xam ni euh, ci man mënuma ko fàtte sama yaay ngi ni si kaw lu mu am yaraax la ko amee ci restaurant maam jaaraam boobu la liggéey ba tabax kër gi tey R plus 2 mi ngi fii si kaw yàlla na ko yàlla may fan bu gudd man ak samay sœur sama sœur yi ñoom ñëpp ñu ngi am kër yaraax man la yàlla dogal man man dama opté dëkk Touba. voilà man dama opté dëkk Touba fa laa tabax sama kër sanc naa ko daaw mënuloo aussi dëkk yi dem dëkki Touba di di continuer politique yaraax malgré su ma ko defoon sax ñu continuer di ma fal voilà parce que vraiment dëkk la boo xam ni man damay sentir euh, population en Bel-Air soo gisee sama politique ma gën a sensible ci ci ci développement ci développement nga xam ni man créer environnement de développement dafa bokk man ci sama politique sociale ak honnêteté dafa bokk man ci sama politique parce que dama dëkk Yaraax gis muy ville bu bu vulnérabilité ba daf farañe bu baax a baax jigéen ñi dañuy sonn dañuy xëy suba teel nekk si géej gi di jaay alors suñ paree dañuy taal añ et pourtant mën naa am sax bu guddee ñooy lijjanti lu ñu reere voilà ku ña ngay jaay reer ña ngay jaay cere ñee ngay jaay fonde alors que vraiment ni ñuy sonnee nga gis ni am-am bi demewul noonu loolu lépp ma bokk ko dund ak ñoom état jeune ba ni ma toll nii tey loolu yëpp dafay bokk ci li may pousser vraiment euh, ma gis ay nit ñu am jom ñoo xamante ni boo leen jàppale quand même dinañu dinañu dinañu def dara ba pare bëgg politique nag ba pare ba di ay nit ñu bëgg politique <laughs> mais vraiment euh, politique sociale développement parce que man. pour man dama ne nit ki bu ko may ay ñaar téeméer ay mbubb di ko dajalee di ko dugal ci ay kaar di ko yóbbu noo il faut arrêter ça dajaloo togg lekk naan c'est bien mais ce qui est mieux mooy danga koy créel loo xamante ni dina ko permettre moom si boppam mu mën a defal boppam dara voilà man euh, différence boobu laa laay laay toujours moom laay préserver bi ma amee deuxième mandat dama dem ci ñaari institution financière J'ai fait 30 millions j'ai fait 30 millions avant amoon ay partenaires yu euh, Espagne ñëw defal 27 millions ça fait 87 millions ma loué R plus 1 Maris xam nga man lu may wax bureau alors que tegal leen ko muy projet boo xamante ni vraiment xëy na ko waroon a tëyee suñu xamoon ni la demee kon duñu ko mais dañu ni état la wala yaa ngi dégg alors que c'était mon argent hein xam nga am mandat euh, nu mu tuddati indemnité député soo ca jëlee trente million jeex na man c'est parce que benn député le mouvement bi amoon il fallait ma defoon dara xam nga te nekk fa naan leen aw maa mënuma du woon ngor ci man beneen bi mooy état mi ngi ma doon xeex ci boobu jamono parce que jàppale ma woon mais parce que muslim xëy na peesewul woon lu bëri mani nit pour wanoon leen ne am naa lu may peese fii ci biir yaraax fokk bo dee xeex ak état do ko dëkk wala loolu moo waraloon en 2014 bi ñu jëlee bi ñu demee local ñu jël mairie bien ah. voilà loolu la li nga xamanteni ni vraiment défon nañ ko si si si si ci dëkk bi di di ñaan yalla nak réccu wun sa dara nak réccu wun sa dara parce que tay ji lañu gëna gën am ak euh ay connaissance yu ba motax man leen euh mbeur musibi la jëru tak ngemb ñuy dellu rek di wax ni jigéen ñi war nañu xam ni mois de mars même mois d'évaluation la war a doon bépp jigéen même bu yor groupement lu mu tuuti tuuti war nga jàpp mois de mars nga def ko mois d'évaluation nga xam ni le huit mars bi bu ñëwee yow ci ngay toog nag génne li nga li nga li nga li ngeen évaluer yépp ngeen def résultat yi xool fi ngeen jóge woon ak fi ngeen yegg si waat tey te defe naa ni foofu la ñuy woo le ministre de la femme vraiment mu gën a góorgóorlu ba ba bu déwénee bu ñu sa yeggee 2021 mémorandum femme yi ñu jébbal ko le président de la république nag di souhaiter nag bonne fête de mars mois de mars à toutes les femmes du monde ndax ku nek xam na ni chaque année CXW bi dañuy don dajé New York pour évaluer quand même fan la jigen toll ci monde bi ren dañ ko dañ ko dañ ko suspendre ndax feebar bu bon boobu nga xamante ni wàcc na si àddina bi ñuy ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla musal ñëpp te musal ci Sénégal musal ci ñëpp ndax munuñu mucc te monde bi muccul kon yàlla na ci yàlla musal ñëpp di am mbégte lool tey nag di beral loxo Hann TV xam nga euh, Hann TV moom sama sama sama tele lay doon dina génn si en ligne di nga génn si biti nekk tele nationale et international lool lañuy leen di ñaanal parce que waye raax ci kaw ci kanam ay nit ñu am jom ñu bëgg liggéey mais ñu solidaire dama leen di tooñ naa leen da ngeen raciste nituk aan foo ko woo fudul yaraax sawaru fa bu la rusee ba rus rek lay génn mais yaraax rek lañu bëgg <laughs> gis nga suñu yaraax googu ñoom moom ñoom moom rek lañu ñu bëgg bëgguñu feneen mais nag quand même ñoo ngi leen di souhaiter vraiment bonne fête merci beaucoup